ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ma jóg liggéeyal Serigne Touba te sàkku ngërëm ci barke Cheikh Moustapha ci barke Cheikh ma jóg Serigne ma jóg liggéeyal Serigne Touba dafa ku ngërëm ci barke Seex Mustafa Mbàkke Sëriñ Baara ci kattanug yàlla ak njool Màkka ak ña ko dar ci mbirum si dila Lamin Baara mooy turandoo xayru xalxulaayi sayyiduna salaalay la si abda Sëriñ Baara

bur yàlla dem baaras di soppi ya moom Siidi Lamin Baara moo sañ a fab tampamub bur dem baaras di soppi ya moom Siidi Lamin Baara jaasi dogal jëfëkkun la daas ba mu ñëw jox ko yonen ba mu jox Siidi Lamin Baara yonen ba dellu fa baara seex ñu ngi leen di siyaar baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen dokkeel bu baax si bisu Serigne Bara bi nga xam ne ngeen koy ànd ak sëñ Xaadim at bu ne ngeen ko ànd ak moom yan kàddu ngeen di wax si bis bi ak Serigne Xaadim yan seede ngeen def si moom. waaw sant ak sëñ Tuubaa bu baax a baax bi nga xamee ni sëñ Basiiru Mbakke moom sëñ Xaadim Awa Ba jël na cër bu rëy jagleel ko Serigne Saliou ture mi nga xam ni mooy sunu wasila di sunu buntu gi sëñ Tuubaa ñu bàyyi ko ba Thiès ànd ak doomam ju tedd ji di xalifaam di Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré ak ay rakam sëriñ Saalihu sëriñ Xaadim ak soxna Maam Bousso ak mboolem ay ay ak njabootu sëñ Sall Touré gépp euh, di santaat yàlla bu baax xam ne sëñ Bas euh, def na lu rafet ndax euh, delloo njukkal sëriñ Baara cëral ci sëriñ Saliou Touré loolu kenn ku ne xam na ni yàlla na raw baax na jaadu na ñu koy ndokkeel ci bis bi ci turu sëriñ bi di ko ci ñaanal sa borom gën ko ci taxawu ba at mu mu dëgmal gën at moom wees ci barkeb Sëriñ Tuubaa sëriñ bi mën nañ xam yan relation lañu am ak ak waa kër Serigne Saliou rawatina waa kër Serigne Saliou waaw relation de kër kenn ko ne xam na ni euh, Serigne Bass barki démb rek la fa jógee ci Serigne bi ñëwoon jaale si ko Serigne Saliou Touré moom mu wax ca làmmiñ boppam ni bi mu nekkee Thiès di jàng ci Al Azhar Serigne Saliou Touré taxawaay bu ne am na ko ci moom teraanga ju ne am na ko ci sa diggante. ngëneel yu ne seq nañ ko kon relation diggante taalibe ko sëriñ kóllëre ak ak kóllëre njabootu sëñ Tuubaa ak sëriñ Saliou Touré relation boobu la seriñ Bass seq ak sëriñ Saliou Touré démb ca bi muy ndaw di jànge ca Thiès boobu di ko waat feddalewaat kóllëre googu nag ak doomam ju baax jii di sëriñ Cheikh ñëw jaarale si ko sëriñ bi fas moom kóllëre ga mu àndoon ak baayam waaye ànd ak moom ci lépp loo xam ne sëñ Bass dana ko yëngu sëriñ bi ànd ceeg moom lépp lu sëriñ bi yëngu it sëñ Cheikh sëñ Bass ànd ceeg moom kon relation boo xam ne la bu euh, bu diggante taalibe ko sëriñ diggante kol kóllëre ak wax alhamdulilah wahdahu asalaatu wasalaam ala rasulillah jërë ngeen jëf ñu ngi siyaar sëñ Bachir mu sëñ Xaadim Awa bu baax li ko xamal ni li ma ko waxan barki démb rek surriyatan tayyibatan tujaddidu najran mustahidu ci la nekk. maamam daa wax ne ñaan na yàlla sët yoo xam ne dañuy yeesal sunna Seydina Muhammad dajale gi mu dajale jur yi rek ci benn béréb ñuy wax lu baax boobu ba léegi ci lislaam ko bokk ak yoonu murit ak tarixe yëpp benn googu rek jar na dajale mbooloo mi waaye itam tabarkàlla kàddu yi fi jub yëpp di defar jëm ci lu baax lislaam lu baax moom la bëgg lu ci lislaam la bokk ñoo ngi ñaan yàlla guddal fanam mu yàgg koo taxawu am na solo lool ndax wax dëgg yàlla dajale fi jullit yëpp dajale fi bokk yëpp dajale fi ñi nga xam ni borom xam-xam lañu loolu nag mooy lislaam lislaam saa su nekk mbooloo lay waxal yàlla bu na dina arkihoo wax juddoo wax bu doo mbooloo nag kon mooy yërmande taqali ko mooy isaab yàlla yàlla guddal fanam jërë ngeen jëf di leen wax ne li ngeen def rafet na lool ci bés ngeen jàppal liggéey bi ci Cheikh Bassirou Mbacké mu suñ xaane waaw taxawal ko di doom di taxawal bisu yi nga xam ne bisu Serigne Bara la taxawal ko ci 2004 ba léegi ba ren ji nekk 16e édition ñun ñëpp ñu ko daan ànd ak moom yàlla mi man ca première édition ya 2004 moom ba fii daaw rek laa ko manqué di sët Cheikh Sidi Mokhtar di fekke suur bi ko sëñ Sidi Mokhtar di jox ndigal ci bis bi mu nekkoon koo xam ne taalibe la ku déggal Cheikh Sidi Mokhtar ku Cheikh Sidi Mokhtar bàyyi woon xel man dama bokk ci ñi nga xam ne ñi jege woon sëñ Sidi Mokhtar ay jamono sax coow amoon na fi ba sëñ bi maa toog jël téléphone paas ko sëñ Bass ak yeneen yoo xam ne yu xóot la ci biir bis bii mu am ci ndigal am ci ndigalu sëñ Sidi Mokhtar am ci ndigalu sëñ Baara di ko taxawal ba si tey mboolem ko fi teew rek sa xol sedd na ndax sëñ Bas bis bi boo xoolee mboolem koo xam ne umma islamique bi daje nga fa muy murit muy tijaan muy xaadir ñëpp benn jëlee naa loolu may alxuraan ji ñu fi jàng rek ak ak ñaan yi ñu fi def way dawle ak ñi nga xam ne moom la tudde bis bi vraiment loolu kenn amul fayam. ak ñaan yi xam ne ñu ngi ko def ci dëkk bi wàcce ko fii ci Ndakaaru te ku nekk xam na ne fii ci Dakar yittewoo a ñaan kon amaana buñ fi wàccee ay junni kaamil wàcce ko fii ci suufu Dakar ñaanal ñi nga xam ne way dawle yi vraiment loolu sëñ bas sëñ bas kenn amut fayam ñu ngi koy ñaanal daal ci barke maamam maamam teg ko loxo bàyyi ko fi moo yàgg a ñu yàgg ko fee fekke ci barke Serigne Touba barke Cheikh Mamadou Lamine Bara. asalaamaaleykum wa ñu ngi ziar bu baax sëñ Baara di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax baax di la ziar si bisu sëñ Baara bi xanaa bëggoon ay kàddu yoo mën a sànni si bis bi ak sëriñ Basiru Awa Ba mi nga xam ni lu mat fukki at ak juróom-benn mi ngi koy ànd di ko def ak mbokk taal bi yëpp yan kàddu ngay wax si moom ak bisu sëriñ Baara bi. waa ñoo ngi lay nuyu di nuyu mboolem say euh, téléspectateur tey nag euh, suñu bis la. ndax ci bis bi lañ bokk fi ñu organiser bis bi lañ bokk ndax bis bi mboolem njabootu sëñ Baara gi yëpp ñoo ko ñoo ko ñoo ko initié ci coordonnateur maanaam ci ginnaaw euh, Cheikh Bass Khadim Awa Ba loolu moo tax ñu teew fi tey euh, toog fii nag di bokk ak nit ñi mbégte mi di ànd ak ñoom ci ñaan gi. alxuraan ji fi jàng bari na xasida yi fi jàng bari na kilifa diine yëpp ñu ngi fi ndax bisub sëñ Baara Mbàkke la te sëñ Baara euh, moom dafa bokk ca gaydel ndax ndeyam euh, soxna Aminata Loore te gaydel nag moo moo moo meññaar réew mépp foo mën a dem ci Sénégal rek kilifa diine yeeg ku mu mën a doon rek boo ko daqee tuuti mu ñibbi ndaam loolu moo tax tey Sénégal gépp ñu ngi fi di sant bu baax di ñaan ñu fekkee waat ko ay déwén yu bëree baree bëri waaw tey waaj màggalong ba Kajoor incha allah le 12 décembre. ñu tudd El Hadj Abdou Aziz Mbaye maam Fama ñëw tey ci bisu sëñ euh, Bass Khadim Awa Ba ñëw fii ci ñaari tànk bu njëkk bi mooy lislaam ndax li mu woote képp ku bëgg diine képp ku bëgg bennoo képp ku bëgg a ànd di nga ñëw ci bis bi waaye lii nag bu ko réussiré daf ko dox avant mu lii di am ndax kër yi diine goo dem fekk ko fa mu am ca taxawaay bis bu nu amee mu am ci waxuma la dem bi muy dem waaye dafay dem ba pare yóbbu dooleem loolu war naa tax ñëw fi beneen bi ci des moo di dama dañu bokk xarit ku ñuy wax Tayru Sarr Tayru Sarr nag muy nekk sama wóllëre boo xam ni lépp lu muy def daf ma ci wóolu wala boog lu bari lu muy def daf ma cee wóolu bokk na ci muy def màggalu Tuubaa bu jotee la ñu yóbbu Touba yëpp la mu fa yóbbu yëpp ci sama loxo la koy teg mais ci sëñ Bass Xaadim Awa Ba la ma tegtal pour ma ànd ak moom ba tax na bu ma fa demee yu bari yu ma yóbbu te xaw ma leen moom moo tax may àgg ci ñoom kon dama koy gërëm ci wàll woowu. beneen bi ci des sama wujuru jigéen daf ko boole ci ñi nga xam ñoom la ñuy ñaanal loolu tax na li tax ma ñëw ñetteel bi ci def mooy li mu woote li mu woote nii ba ku baax ku ne ñëw fi jar na ku baax ku ne dikk fi comme diine ji benn la. Euh, alxuraan benn la yàlla ji benn penk bi benn la képp koo xam ni dafa woote ci bis bi war nga cee ñëw loolu moom ma fi indi di ko ñaanal lii muy def yàlla na ko yàlla may mu def ko ay at yu bari li ma ci kontaan nag mooy li ko bokk yëpp dajaloo gërëm ko ku say bokk dajaloo gërëm la ku ne war na laa xam ku ne war naa xaritoog yow loolu moom ma fi indi. man sëñ Bass daal suma xarita yàgg na noo xamante première euh, journée bi at moom ku njëkkee commencé. Ousmane Masseck Ndiaye moo ma woo boole ma ak moom baat ma at mu njëkk ma ni ma jàppale ko mu neexee jàppale lool di nit ku yiw foo ko fekk lu baax lay wax lu baax lay dox lu baax lay def man sëñ Bas xaw ma frontière am fenn loolu nag yàlla moo nu boole lu mu bokk rek mbaa mu ànd ca naa ci ànd moom ci gàttal daal ku ku baax. gis sëñ Bas sëñ Bas doy na royuwaay noo ko mën a jur mag foofu mën nañ ko lu ne waaye man xalaatam ak doxinam neex na ma lool fu lu baax nekk rek mu ne fekk fa Bas te mosuma ko dégg mu wax lu ñaaw mbaa mu def ko lu baax lay wax euh, lu baax lay def mbokkum ñëpp mbokkum ñëpp surtout sëñ Touba rek dooy na waaye kaala woowu ko teewul ñun ñëpp mu respecté leen suy dox soo ko xamee xam nga ko waaye nit ku baax la man bas fu ma ne fekk na ma moo tax lu ma xew la rek sañu ma as aw ma aw ma pexe nag pour bañ a ñëw ndax lu ma nekk mu nekk ci yàlla nañu ko yàlla fayal mu yàgg a woote lu mel nii ndax sagu murid la sagu jullit yi la bas amul kër amul frontière basse yàlla nañu ko yàlla fayal yéen it yàlla na leen yàlla jàppale ba seen compagnie bi seen seen bi jëm kanam ba bokk ci royuwaay yi jërëjeen jëf jërëjeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah yaay booy ñu ngi lay nuyu di lay siyaar baax a baax a baax di sant baax si teewaay bi si bisu sëriñ Bassirou bi ah, bëggoon ay kàddu seede rek yoo mën a wax si bis bi ak ak sëñ Xaadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa naaw bi ñu sant yàlla jul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba ak Cheikh Mouhamad Lamine baara dañuy wax rek ne bég nañ lool ci bis bi di sant Cheikh Bassirou bu baax a baax ci initiative bi mu jël pour defal lii maamam donc ñu ngi koy bokk ak moom di ko ànd ak moom di kontaan lool di bég si moom di ko ñaanal mu yàgg koo def ci barke Serigne baara ñu tam ñu yàgg koo fekke ñëpp kontaan nañ daal jërë ngeen jëf. yan yan kàddu seede ngay wax si sëñ Bassirou. ah di wax ne rek nit ku baax la nit ku baax la ku fonk mbokk ku jox cëram ay magam ak rakkam wax dëgg yàlla macha allah moom daal baax rek lañu xam ci moom baax yaatu ak bëgg ay mbokkam bëgg ñëpp nag bëgg ñëpp loolu rek lañ xam ci moom wax dëgg yàlla mën a dimbali nit aussi mën a dimbali doomu aadama moom daal dañ koy ñaanal ñun daal ñaan rek lañu am te moom lañ koy defal di di ñaan yàlla lu mu mën ren yàlla na mën dewen lu ko ci barke sëñ Baara bismillahi rahmaani rahim waaw man euh, maay soxna maam Ami Diop moom soxna maam Asta Baara di doomu bàjjanu sëñ Bas Xaadim Awa Ba mi waral bés bi euh, li ñu xam ci moom nag mooy wax dëgg yàlla topp ci ay tànku ay juróom rek di def lu baax di wax lu baax daanaka biñ ko xamee ba léegi loolu lañ ko xamee bëgg ay mbokkam di teral ay mbokkam parce que bu ñuy wax fii mën teera ci ay bokkam la ko doore ay jaamam moom macha allah waaw dañoo bokk benn deret nag seen baay di góor suñu yaay di jigéen ñuy suñuy sang waaye xeebuñu ñu benn yoon ñi ngi ñuy teral fu ñu toll bala ñoo teral kenn ñun lañuy jëkk teral di magam gannaaw ba ma doonee jaamam di doon magam macha allah di ko sant daal di ko gërëm ci bés bii nga xam ni saxal na ko di ñaan yàlla ñu def ko ba cinquantième anniversaire ba paase ko ci barke Xadimal Moustapha barke Cheikh Mamadou Lamine Baara jërë ngeen jëf. Cheikh Bassirou Xadim Awa Ba di ko amal fii muy bisub Serigne Baara bis bi nag tey jii la allah waa Touba ñëw nañ. waa Tivaouane ñëw nañ waa ba ñëw nañ waa Kaolack ñëw nañ ñu ñëw nag toog ak kilifa di Cheikh Samba Xeye di dernier Cheikhu Cheikh Sidi El Mokhtar ñëw ci bis bi yàlla dogal bi mu ñëwee démb la ñëw andi ñaari nag yu mag def ko àddee Serigne Baara ñëw teew ci bis bi Cheikh Bassirou Khadim Awa Ba moo ko teg fii mu toog ni ko waroo sori ndax bis bi sa bisu bopp la kon Cheikh Samba ñoo ngi lay nuyu di la siyaare di la ñaanal jàmm di la wax ni ñëw nga sa bisu bopp ñëw nga sa bisub sëriñ. jërëjëf sëriñ Saliou alhamdulilah santaan na yàlla bu baax ci jotaay bi nu teew muy bis boo xam ne yaakaar naa ne tey mooy seizième édition du Cheikh Ahmadou Lamine sunu sëriñ taxaw sëriñ Bas Gaynde ak sëriñ Baara tey bis bi dañ fi ñëwee ñaari jàlla bi ci njëkk mooy sëriñ Baara. waaye jëmmi sëriñ Basiiru ndax lii mu woote doonu sët waaye ko gis nii mu mel sëñ Bas boo ko xoolee sax da ngay xam ne gaynde baal dëgg la sëñ Bas toogul mooy jóg di dox di gàttanu gan ñi di leen dalal mbooleeg euh, ku mu war a jox cër jox na la cër ci bisub sëñ Baara bii daane ñii ma xam ne nooy sama noo la bokkal sëñ Baara nooy toog waaye man maay bàyyi faalub sëñ Baara takk ndiggam waaye lii yaafus du ko def am yambar du ko def waaye moom ku am cër la ci sëñ boo gisee mbooloo mu fi dajee ku ne ñëw daa fay si daa daa ñëw fay si bool waaye sëñ bas lebal na lu ëpp lii sëñ bas nag du ko ñuy laaj teeti man nag lépp lu ma fi def jàpp naa maa ko war a def ndax ni ma sëñ baara defal ndax koo xam ne boo génnee noo mën a mel danaan jàmbari sëñ baara jàngo seexu seex si di muxtaara ngoog kon moo waral bis bi ma ñëwee fi fi taalibe nag ba saa yi may dem ndax nag lu ko may ku ne xam ne bis bi moo doon bis bi nga xam ne mënu fi jógee Mbàkke Kajoor jëm sëñ Bas nag dana koy ñaanal yàlla guddalu fanam ba mu def ko téeméeri at yu bokk yu tàmbali ren. dañoo gis bi nga ñëwee nga am noo ñëwee démb nga ñëw indi sa ñaari nag yu mag ak say addee boole ci ñu jox sëriñ bi ñëpp topp la nga ni affaire bi sëriñ Baara la kon bi nga ñëwee tey gis mbooloo mi teew lan nga yëg. naa santaat yàlla dafa am foo xam ne këll bi nga naanee doo ko fàtte këll bi ma naanee këllub sëñ Baara la man nag foo ma gis damay maslaa. waaye guddi guddi ci sëñ Baara rek lay tër kon bu sëñ Baara wootee ma indee nag loola damaa xam fi ma naane muy teenub sëñ Baara fi ma naane nag génnu sëñ Basiru ndax boo ne sëñ Bas sëñ Xaadim sëñ Baara muy koo xam ne nag lii mu def nii laa la wax ku ne war na cee roy moom nag bu dee taalibe sëñ sëtub sëñ Baara ñun nuy taalibe sëñ Baara waroon koo def mu def ko kon ñun lu nu ci def xeeb nan ko te nag sëriñ bi damaa sant yàlla bu baax ndax bi ma ñëwee gis njabootu sëñ Touba gépp waxuma ñi sëñ Bas bokkal waaye ku dib taalibe rek teew nga fi ànd ak moom bis bi kon loolu sant naa ci bu baax maa ngi ñaan daal ku fi teew yàlla na sa aajo faju noo ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di jiital cant gi nag sëñ Moustapha ibnu seex Sidil Muxtaar. jërëjëf Cheikh Samba Xaye Cheikh Cheikh Sidil Muxtaar moom mii kat mooy seex bi nga xam ni mooy dem ci région yi ak Afrique bi di tuubal nit ñi di leen andi ci Serigne Touba leen andi ci Serigne Afrique bi xam nañ ko àll bi xam nañ ko fu ne lay dem ci àdduna bi di leen tuubal di leen def ay jullit di leen jébbal Serigne Bara kon Cheikh Samba Khayre ñoo ngi la ñaanal suñ borom taxaw la aar la sàmm la ci barke Seydina Muhammad di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Cheikh Mamadou Bassir bisam bii mu def fu at ak juróom-benn mën naa ba mu koy def ay tuutànk lañ bañ mën a xàmmee ba mën cee ñëw ñoo ngi ñaan mu def ko téeméeri at yu tàmbali ren ci barke Seydina Muhammad di leen di ñaan seen yàlla na bokk ci télé yi nga xam si ne boo liggéey sëñ Tuubaa koy ndamoo ci ak rafetal ci barke Seydina Mohamed kontaan nañ bég nañ jërë ngeen jëf ku la fa diwaan fa peyib fi yàlla ñëpp nga naan gila ma leetu fi fel sampub sëriñ baara waa mulku ak malakoot ak kursiyoog jabaroot seen atte benn la ngi siidi lamin baara fadat wayaayiluhum wadat fayaayiluhum wasan wayaayiluhum xam nan sëriñ baara wasas ma yaayiluhum wasan ja yaayiluhum ki leen di jox ndigalay siidi lamin baara